ñingi gëna sédel khalifa bi sunu kontaante ci taxaway bi waye hitam ñi bëgg koy léralal tuuti rek ndax ñaari njaboot yi fi daje muy njabootu cheikhna Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu waye hitam ak taxaway sayyidna sayyid ali at-tamasini taxawayam ci tariikha bi ak taxawayam cër bi nga xamné moom la ko seex na Ahmada Tijaani jox ci tarixa bi ba bi mooy delloo si ñaari doomam ci gannaaw dénkaane bu baxee ko ci sayd saydna seex Ahmada Tijaani radiallahu taala anhu pour ñu seede tuuti ci taxawaayu lenn ci njabootam yi nga xam ne ñoo wuutu ahbaabi seex yëpp fële ci suñu Afrique gële wala ma su ko defee Seydina Seyd Abdul Muttalib at Tijaani mii nga xam ne tey moo fi xalifa Seydi Mouhamadul Habib doomu Seydina Seydi Mahmoud muy doomu Seydina Seydi Basir di doomu Seydina Seydi Mouhamadul Habib muy doomu xutbu rabbaani Seydina Ahmed at Tijaani radiyallahu taala anhu xam nañ ne alaaji Aliyu Tamasini moom la Seex na Tijaani dénkoon njaboot gi mu jële leen Algérie andi leen fii te wan nañ sax waruwaay bi nga xam ne muy e, toogukaay bi nga xam ne ci lañ leen tegoon yenu leen ay taalibe yenu leen ba fii ci tamasin yi mu méngoo seeni mbir samp leen bañ dëgër tariixa bi da dox ba seen sët muy Seydina Seydi Mouhamadul Habib at Tijaani ci ndigalal maamam Seexna Ahmad at Tijaani ñëw Sénégal dëkk fa ak ahbab cheikh ya nek fofa defa liggéey liggéey bu rëy ci tariqa bi defa dox tànki mamam cheikhna ahmed Ahmada Tidiane toog fa jataayam ba kenn ci ahbab cheikh yi ku ñuy wax mohammed Xaali Ba bokk na ci waxam de mellal taxawaayu Sëriif Mouhamadul Habib muy wax ne kam marratin jaalal bilaadu muudixan bi anna tariqata laqbuha tijaani pour de wane liggéey bi nga xam ne moom la Seydi Mouhamadul Habib di liggéey ci biit Afrique de benn loo taalibi cheikh yi de leen xamale comme niñ ko defee fii tey liggéey booba nag moom la Seydi Abdul Muttalib Tijaani gën a yaatal gën koy rafetal gën koy dëgëral ba loolu moo jur délégation yii ñi gis fi tey muy waa Gambie waa Guinée waa Mali waa Côte d'Ivoire ba waa lenn ci ay sénégalais ya nga xam ne ña nga nekk France ànd ci benn délégation te délégation boobu Seydi Abdul Muttalib Tijaani moo ko jiite ku nekk xam na ne wéradig yaramam moo ko fi tere teew waaye ruuxaaniyaam ak makamam yep yépp dénk na leen ñaari rakkam yi wala ñaari domam yi tabaarakallaahu ñi tew fi tewayam di leen ne dal Seydi Abdul Muttalib atijani taxaway bi nga xamne mom la seex tijani don dox ci julit yi nga xamne khilafa gogu mom la dénk alaaji ali at tamashini radiyallahu taala anhu mu ko doxal fi ci rewmi ba màndarga yu rëy yëpp ñi teg ci suñ bët fii ci réew mi Seydi Abdul Muttalib yi loolu moom lay doxal ci Afrique gële ñu nekk rawatina biir Sénégal ak Gàmbi waxtu bu nekk mi ngay dajale muqaddam yi mi ngi dajale taalibe yi de waxtaan ak ñoom de leen dimbali ci wàllu social de taxawu daara yi alquraan yi daara xam-xam yi tabaarakallaahu taxaw fa taxawaay bu rafet rafet rafet rafet ba nga xam ne tey fii buñ xoolee liggéeyu alaaji Ali Tamasin yi ak taxawaayam fii ci Jazaïr ne leen wóor ne taxawaay bu mel noona moom la Seydi Abdul Muttalib Tijaani taxaw kon nag gannaaw ñun ñëpp njaboot lañ ñi ngay sàkku ci xalifa bi mu defal ko ñaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kalimatu shukr wa idhaari alwuquf allati kaana yaqifuhu Seydi Abdul Muttalib Tijaani bi nasri tariqati وجميع الإخوان والقبائل ليكونوا آه ليكونوا يعني واحد نعم وقوفه في سنغال وفي غامبيا وفي موريتاني وفي مالي وفي فرنسا كثير من البلاد لذلك اختار هذه الزيارة آه، بما كانوا يدرسونه في الكتب ويقرأونه في الكتب ليشاهدوه بأعينهم هذا هدفه في هذه الزيارة لذلك يشكره ويبين وقوفه أمامكم نعم لتعرفوا وتشهدوا ذلك يطلب منكم الدعاء أن تدعوا له بطول العمر والصحة والعافية هذا العمل أو هذا الوقوف الذي وقفه سيد عبد المطلب آه، وقفة كان من زمن والدي سيدي سيد محمد الحبيب رضي الله عنه لكن نشكر السبب السبب آه، آه، الذي هو الذي السبب الذي ظهر كل هذا يعود إلى مولانا سيد الحاج التماسين رضي الله عنه إنما أوصاه شيخ نتيان رضي الله عنه بزريته بأولاده أن يعود أن يجيء معهم بعين ماته لذلك جميع من رأينا من ذرية شيخ نتيان رضي الله عنه من ذرية سيد محمد الحبيب بن الشيخ رضي الله عنه لذلك تسلسل حتى وصل ذلك الفضل في سنغال نعم وظهر هناك سيد عبد المطلب التجاني لذلك السبب وقف هذا الوقف ليكونوا جماعات وجمع قبائل وبلاد متفرقة من سنغال وغامبيا وفرنسا وما أشبه ذلك آه، لتكوين هذه الزيارة السنوية في عين مادي وتماسيني وما حولها الحمد لله رب العالمين